ci dund ak koddaay ak dëkkuwaay bu méngoog jamono ja dund nga xam ne nii lii dana ko dooy dooy njabootam te loolu mooy xel saa yoo jëlee waxtu nit bu mënatul def dara ay soxlaam ak soxlaay njabootam yow la war kon waaye juri nañ seetluwaat tomb bii bu baax soxlaay sëriñ daara yi ak soxlaay njabootu sëriñ daara yi yéen la war ndax yéen jël temps bu mënatul def dara waaye dund seen njaboot yi ak seen dëkkuwaay ak seen koddaay ak seeni toppatoo yéen sëriñ yéen waajur yi yéen la war ndax yéen la ko yàlla dénk sëriñ daara bi jàngale moo ko war ak yaraate te jàngale moom ak yaraate boobu dangeen ko war a gàddul ay soxlaam ak soxlaay ñi aju ci moom muy njabootam muy dundam ak koddaayam ak dëkkuwaayam ak fajoom ak lépp ndax mu mën a toog jàngal seeni doom mais li xew nii léegi dëgg-dëgg ak tooñ la gu jamono tasaare mu mel ni dëgg waaye du dëgg bàyyi leen ci xel te ngeen xoolaat doxalin yi seen digganteeg daara yi ak seen digganteeg sëriñ daara yi waajur yi nekk ci daara bu nekk nañ jublu dimbale lislaam ndax xam nga ne lii mooy sa njëriñu doom ba nga yëkkati ko andi ko ci daara ji kon war ngaa dimbale lu mel noonu ba mu bari fi ndax ñëpp mën a jariñ waaye xam ne lii jariñ la doom ji nga gën a bëgg nga yëkkati ko dugal ko ca seetaan loolu muy naxasaay cim réew dëgg-dëgg loolu kenn xamul nañ koy tudde waajur yu nekk ci daara war nañoo organiser wu xool ni ñuy fayee location ba ndax ñoom la war ñoo war a jox seen doom dëkkuwaay man nag lislaam laay wax war a boo gannaaw loolu it war nañoo xool lu xale yi di dundee ñu di ko joxe parce que ñoom la war courant baag ndox baag war na sëriñ daara bi war na ko organiser ga waaye bu weer dee waaye jur ñoo ko war a fay parce que ñoom la war ñoo war a wut luñ dundalee xale yi maanaam ñuy toggal xale yi ñu leen fóotal ñu leen sang parce que ñoom la war ba pare nag ñu xool sëriñ daara bi condition yi war ci moom ak ci njabootam muy dund sëriñ daara bi ak koddaayam ak dëkkuwaayam bu méngoog jamono mu mën a faju mën a nekk nit comme nit ñi ñu jàppale ko ci parce que ñoom la war ndax ñu jël temps lii moo doon yoon waaye sëriñ bi nangu na ngeen di ko fay la ngeen koy fay tuuti lool mu wutal ci seen doom dëkkuwaay di leen ci dundal ay soxnaam di liggéeyal seeni doom te ba ñuy takk soxna yi takkuñ leen lu ma ñu topp seen borom kër yi pas di liggéeyal doomi ñeneen